présentation présentation. asalaamaaleykum gars yi ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi leen di nuyu gars yi ñu leen nuyu voilà gars di ziar ñëpp di nuyu Fatama bu Joosam di nuyu américain bu Touagar Katim bi war a daje si bis bu rëy bis boo xamante ne moom la ñëpp di xaar waa Touba waa Kaolack waa Grand Escale ñëpp nga toog di xaar. may leen waay ñu ah, dégg tamit mu nekk koo xamante ni champion la fii. Ah, ah, américain dem nekk koo xamante ni champion la fee. kon ñaari champion su ñu nar a daje. kon gis boobu du yomb. kon léegi kon ñu ngi nuyu nga xamante mooy Fatama mu recevoir nga xamante kii moo ñëw sa commune fekk si la mu nga xamante mooy américain bàyyi ko nga xamante ni benn commune ñëw sa commune kon dèjà Fatama ñu ngi lay nuyu. السلام عليكم آه، آه، la gërëm ji la pardon pardon gars yi nee nañ sa wax ji dégguñ ko nee nga wax bu baax mais mburu mi la soxla quoi waaw di fecc sala sa waay di wax ni ragal nga am moo ñu boole rek dëgg sa la may góor day wax waay la wax waa deux américain la wax waa Kaolack américain la yow. cinq minutes kaay boo ko doon dund. waaw lay nañu waaw mais mu nuyu sama adversaire yi ak sama. américain rey bu dee. ñëpp ñëpp supporters yi. nuyu ñëpp nuyu waa dëkk bi. gënu maa dëkk fii de. foofu fi mbokk de. xamante nañu. amee nga. waaw. Ah. waxul leer. bàyyi rek xamuñ de. non xam nga moom. Ah, dootoo nangu. ja dootoo dootoo nangu jàng. ndax xamal lu bëri tey seegul bis booba maay doon mbëru dëkk bi falaa yama yow yow ñoo fekk si dëkk bi ñu naan man dëkk loolu mi def. waaye déglu leen yow jàppale sa bis bi rek. waa man combat bu nekk am naa ko. yàgg naa bëri. yaa fi naan da nga koy daal. moom a koy daal non koy daal

waaw ah, fexeel yow ñeme oduseur fexeel Alamun sih, banyak. liiru combat liiru combat cata ji dugg cata ji dugg bay ñu ne la waaw yàlla yi daa yéex li yéex li yéex li yéex. ma tax mu gaaw tuuti waay.